dugal leen ci kaso bi ñu daal leen di bàyyee yéen kaay gi de la sa xëy di ñu xibaar na ñu Ousmane Sonko njiitul Pastef jamono ji nag ma ngi ërtal ki nga xam ne mooy Macky Sall moom njiitul Pastef nee na nag Macky Sall su dee nag jàmm la bëgg mën nañu koo fekk si si jàmm jooju waaye nag su dee dafa bëgg leneen loolee tamit mën nañu ko see fekk si ba ñu si sàlla yaay ndara yéen kaay gi de l'info xëy di ñu xibaar na ñu mouvement pour la défense de la démocratie avertir nañ ki nga xam ne mooy Macky Sall Ousmane Sonko ne Macky Sall wàllam wéy na Macky Sall jeexal na Macky Sall c'est ba tey ci biir sur journal bi moom njiitul Pastef nee na Macky Sall bu yaakaaree ne recruter ay policiers ak ay gendarme loolee mooy tax askan deltu ginnaaw ma nax boppam yéen kay gi de libération xëy dañu xibaar nañu opposition bi mouvement pour la défense de la démocratie ni ki démb wax nañu lu leer nee nañu nooyal gi jeex na nooyal gi nga moom la doon def léegi jeex na yéen kay gi di Vox Populi Barthélémy Dias nee bu Macky Sall ay élections présidentielles loolee kàddu yu baax Barthélémy Dias la en 2024 présidentielle tuy para pas de présidentielle tuy para yéen a kaay gi di Sud Quotidien nee na mouvement pour la défense de la démocratie jamono ci nag ñoo ngi accélérer la cadence yéen a kaay gi di Les Échos Cheikh Tidiane Dieye nee na nag jamono ji maanaam deltu ginnaaw jeex na doot nañu deltu ginnaaw benn yoon avance rek offensive rek amutul lenn loo xamante ni maanaam dinañu ko ci bañ ndax Macky Sall ci boppam nag xamul yeela yéen a gi di 24 heures Barthélémy Dias nee na nag Ousmane Sonko ci weeru sàttumbar danañu danañu ko convoqué danañu ko tëj su dee nag ñi nga xam ne ñoo ànd ak Ousmane Sonko jógu ñu takk taxaw maanaam mobilisé moom Ousmane Sonko ci biir yéenekaay gi nee na Macky Sall tuuti na lool loola Macky Sall tuuti na loola ngir tere ma bokk ci élection présidentielle 2024 Guy Marius Sagna nee na élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal nañu ko def ay référendum nañu ko def ay référendum ndax nag élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal di élection locale yi maanaam nag askan wi nag war na ñoo wane seen bopp bu baax a baax ndax nag mën a gànta la projet ñetteelu mandat bi Macky Sall bëgg loole nag ngir mu am Guy Marius Sagna nee na il faut ñu mobiliser Bougane Gueye Dany nee na xaajaliko gi nga xamante ni moom la opposition bi di xaajaliko loolee mooy may doole pouvoir bi ngir nag li ñu bëgg ñu daal di koy am il faut ñu mobiliser yéen a kaay gi de las xëy wax ci tournée économique bi nga xam ne njiitu mi di Macky Sall koy amal ci diiwaanu Fouta journal bi nee na bëri na ay doléance ay doléance yoo xam ne ñoo ngi xaar Macky Sall yéen gi de Le Quotidien nee na ay inauguration ak ay lancement ay infrastructure moom la Macky Sall di def ci fi nga xam ne mooy bët gànnaaru réew a kaay gi ñu xëy fekk a Babacar Diop nee na tournée pré campagne déguisé yi nga xam ne moom la Macky Sall def loolee terewul nag maanaam dina am ab jël ab defet boo xamante ni defet bu garaaw a garaaw lay doona yéen a kaay gi du source xëy duñu ñu en tout cas li am ba desal ay ndaje yu guddi rencontre nocturne dox diggante APR ak ñi nga xam ne ñooy waa parti réew mi ngir xool ana nan la ñu lëngu yi nga xam ne moom a kaay a a kaay la Samba xëy du duñu xibaar na ñu ñeenti combat yi nga xam ne Gaston Mbengue tëggal na ko Balla Gaye numéro 2 Balla Gaye mënu saa nekk roi des arènes fii ba 2023 Balla Gaye ko fa nekk yéen a kaay gi di Stades xëy duñu xibaar naan ñu coupe d'Europe bi ni ki démb Italie la woon ak Turquie Italie dóor ko ñetti bal ci dara yéen a kaay gi di Les ñu xëy fekk fa Matar Ba mi nga xam ne moom lañ dénk lu jëm ci wàllum tàggat yaram gi na nay tontu ki nga xam ne mooy Sadio Mané nee na nag am na loo xam ne war nañu ko moytu nañu moytu di def comparaison ndax nag mënu ñoo nekk nag ci même condition